àndandoo changé yore ju koy safoo ju koy sëñ Bamba nga yor moo tax yàlla boole la ak tubarkalla Baye Fall bi boole la ak Bamba man lañ mën a may tag man saa yu man jaara bu su lab lislam xaari ma ko xàlloon góor ñu xuba seera sanga Tuuba sëriñ Bamba la ñoom moom la ñuy tiitaroo barke Bamba yàlla boole la ak ku baax boole ak Seexul Xadim muy bàyyi Serigne Saliou borom jurul borom njàpp na borom joon ko joxul xëy la waaye boole la ak Baye Fall yi nga xam ne tubaarkàlla day sëqali ngañ yi nga xam ne dóori guur yi nga xam ne tubaarkàlla toroxul jigéen jàqul jigéen barke Serigne Bamba dala sagal sagal la ci sago yi jëkkër ji gëj ci jëkkër ji raw ci jëkkër ji mooy ki sago ki tiitaroo ki faj sa mer ki la dawal say gaay ki jël say noon jël ñu tàllal ba càgga jaay kookoy kan mooy maam Bamba barke Serigne Touba ay ca doxalal foto na yow foto nu tubaar kàlla tudd mi waa kër Serigne Touba yaa ngi nii ma la ko foto waa kër Cheikh Fall yaa ngi nii waaw te lu mu am moo ko may ba barke Serigne Touba yaa ngi ñëw dama doon lalal yaa jotoo ma yéen may lalal may lalal sama doom c'est bon c'est bon aajo sama téléphone. yaa liggéey lool. asalaam ñu koy waxtaane. tubaarkalla macha allah du leer bi kun ko tuddee lépp ba fay mari su leen ko tuddee loolu day na ndam. c'est bon. merci beaucoup. mooy ju koy safoo ju koy sëñ Bamba nga yor moo tax yàlla boole la tubarkalla Baye Fall bi wala Faris bi loolu sëñ Bamba man lañ ma la may fekk man Sadio man jaara bu sukk lab lislam xaari ma ko xalun góor ñu sukk dira juróomi sooroor ñetti xuba seera sanga Touba sëriñ Bamba la ñoom moom la ñuy tiitaroo barke yàlla boole laak ku baax wala ak Seexul Xadim muy bàyyi Serigne Saliou borom njurul borom njàpp ndax borom joon ko jorul xëy la waaye boole laak bàyyi Fall di nga xam ne tubaarkàlla day sëqali ngañ di nga xam ne day dóori kuur di nga xam ne tubaarkàlla toroxul jigéen jàqul jigéen barke Serigne Bamba dala sagal sagal la ci sago yi jëkkër ji gëj jëkkër ji raw ci jëkkër ji mooy ki sago ki tiitaroo ki faj sa mer ki la dawal say gaay ki jël say noon jël ñu tàllal ba càgga jaay kookoy kan mooy maam Bamba barke Serigne Touba ay ca doxalal foto na yow foto ma la ko foto na Cheikh Fall yaa examen mooy xoolaat tuuti na. yaa ngi ma taral ma laa taral ñëw ko ci waaw yaa ngi jël bàyyi man bàcc barke Sëñ Tuba sama rakk joojee voilà maaleykum salaam. yaa fi yaa fi manqué ñëw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va. waaw salaamaaleykum Soumboulou nuyu nañu ci loolee. Soumboulou nuyu nañu la. fay ah. ci jàmm. amiin yaa rabbi <laughs> yaa ci màgg. Ah. salaamaaleykum

xam nga tey yaa ngi wax sa doom doo ko may géwal yaa wax doo ko may tëgg yaa ngi wax doo ko may tukulóor doo ko may nangam mais tey tubaab bu ñëwee da nga koy may sa doom mais géer ak géwal bu amee ci tëgg si si nit ku ñuul war na am ci tubaab bi kon donc yooyu amul sens exagération amul ci jeu non non dañuy jàngalaate rek ça dund lan waaw man dem naa takk jabar paa bi ni ma lan la ma ne ko man tàgguma la dama la yónni rek soo dem nga dem soo demul nga toog parce que man doomu aadama laa ah, dama ne ko dama laa yónni rek sooy dem takki nga takki soo demul waaw ndax kooku géer la am géewal ma ne ko ma nit la dama la yónni sooy dem takki takk soo demul nga toog ay géer laa géewal man lijjantiwuma loolu man ki ma bëgg laa dem seeti na nekk sax moo kii kii leneen mais nit ak nit bu nu bëggantee foofu dara amu fa kenn gënul kenn du dëgg ay géer ak ay géewal ak affaire yooyu loolu moom ñun danoo war a respecté géewal yeeg tëgg yeeg yooyu bu fekkee géer la comme ni ñu koy waxee parce que tey samaam da lay réer géewal dem ñuqati ko wax la am boo xamul woon nga xew la géwal ñëw wàcce boppam taxaw jàkkaarloog yow di wax ak yow sa kanamu nawle ba ñu respecté la mais loolu dafa am am dafa am kon Sonko ñoom buñ ko koy joué ça ñu jàngal nit ñi xamal leen li lii ñuy def nii amu sens ay bañ géwal ak bañ géer bañ tëgg yooyu amul sens quoi nit ak nit la yàlla doomu aadama la wax yàlla ci alxuraan bindul géwal bindul géer bindul tëgg doomu aadama la wax loolu nag Sénégal la am te loolu kenn mënu ko fi dindi ay géewal ak ay géer kenn ko fi dindi ko ngay da ngay da ngay da ngay da ngay yàq moom moo di Yoro 2 mu feebar est-ce que moment bi yéen a ngi waaw man nag feebar dama ko dégg rek ci ci dama gis rek ci internet bi waaye su fekkee ni yàlla def na mën nañoo am numéro pour dimbali ko tamit ñu def ci liñ ci mën rek waaye du dimbali boo xam dañ ko war a wax fii nii dinañu dem dimbali ko bu ñu fekkee am na numéro mu laaj ndimbal mën nañ ko dimbali te kenn du ko yëg du dëgg waaw kon ñu ngi ñaan ñi nga xamante ni tamit ñoom ay mbokkam lañu wala ay xaritam lañu ci milieu bi ñoom nañu jaar ci suuf rek ñu dimbali ko bu dëgg parce que nit ñëpp ay feebaran ah. parce que tey ni muy ñaane noonu ni dafa feebar suba ñi ko tane yàlla mën na leen wàccee ñu ñaan ni mooy loolu du dëgg kon maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp waaw. alors léegi lan ngay wax Marichou ak Fodé dañu gis ginnaaw bi nga xamante ni marié woon <laughs> marié woon nañu boobu ba léegi mais dañoo effacé wu lu bëri gisuñu leen ci. kan ak kan la euh, Marichou ak eh, l'autre là Billy Dimas voilà. waaw ah, eh, mais ginnaaw seen mariage léegi lu bëri dégguñu leen ci gisuñu leen ci. waaw dañoo dañoo ci jàmm rek <laughs> dañoo nekk ci jàmm rek xam nga sëy moom c'est secret. sëy amul sëy yi ñuy wax ci mbedd mi du sëy ay kii ay la rek. am problème ak sa jëkkër ci mbedd mi di ko wax amul sens parce que da xalaat ni démb neexoon na kon bu mu naqari tey nga koy wax ci internet bi du dëgg ñoom ñaar ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam loolu moo tax kenn déggu leen te ñu ngi seen liggéey man maa ngi liggéey ak Billy maa ngi site internet bi di ko liggéeyal du dëgg marisu mi ngi def leneen leneen kon am ñu jot boo xam dañu nekk fii di wane seen sëy ci mbedd mi di xuloo di ko wane ci mbedd mi amul a nekk député ñu génnee ko kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant rek yàlla barkeel seen sëy bi la ñu am njaboot gu barkeel tamit ku nekk yàlla may la sa télé bopp liggéeyal nit dafa metti da ngeen am ku nekk sa yifu bopp ne ca bu ko defee ñii ñëpp tamit dañ wuti ñeneen ñooñu amaat seen yifu bopp noonu lay fi demee sant nañ leen gërëm nañ